waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo la waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo may leen xalaatu leen bi mënu leen ko ma ne il faut ñu reporter élection bi yow ak diw di fa ngeen bokk ma sama bokk élection mënul justifier report élection gaw ma ni Sénégal ba mu daj am na ku mu gën a mérité nekk candidat man waaye nit ak sa yéene yàlla dogalam ku ko xamul rek da ngay sonn bontu bi président xam nga la wax madame yéen ñu dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko def. kon. lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu la déposé recours mooy rabanale bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala la ñuy def commission d' enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre ne nañu attaqué devant le conseil constitutionnel bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib si nii ne ko doyen la ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa dama bëgg nga wootee anciens amis du PDS ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus mu wax mu jox ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb lu ma taaree tere dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci laa ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëggu mu ñu jaar foofu peut-être ñële mën nañ ne amuñu qualité agir mais yow candidat la boo déposé ñu ne tu as qualité agir kon bul déposer recours dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa bu démissionné ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax bu bëri Sénégal nag moo di demee wax ji bëri na da ngay gis ku la bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nag boo ko wóoroo da ngay def ni Aboubacar defoon biñ ko nee sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé duti moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg la waaye nit booy wóolu tant que yaa koy gis ñàkk koo gis mun a jaaral nii nga ne non non kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egg fii li wax nii am na écart bu xam suñu diggante te c'est tout normal mooy Pastef dañ koo songu pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñu gis woon lu dul xeex ak défendre bu ñu ko dewoon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les parce que mënu woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi day jeex may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te jumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu lu si ñu lu mu mën a def ba delloo si li ñu rek dinaa ko def tey delloo si suñu parti politique ñi doon wax ex dinañ ne passif donc dina war a dem tey delloo si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii waaw am taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat yàlla ne samay biir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des de nos frères et sœurs qui souffrent dans les ñi doon wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce dinañu gagné waaw par excellence suñu gagné wul woon xam ngeen ni ku fi njëkk toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi su mboon mu yeggale ko kon maag Basirou mii 10 ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai non dinañu dem ci élection bi soobee peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision yi fa ñëw gis nañu maam sama gaddim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés la woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est-ce que est-ce que xam nga ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prof ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey nañ ko def